jàppale ma rek. ah parce que am na xalaatu gars yi sa xalaat la amul. xalaatu ñoom commerçant waaw waaw waaw moom moo am rek. <laughs> waaw waaw waaw waaw ñoom boo nee dañ leen bett kenn avisé wu leen. waaw mais Sénégal boo seetloo bu baax boo désencombré. mu ah. ne la dañ maa bett. Ah. seetloo loolu. Ah, parce que jox kii du la jël au day xaar ba keroog ba nga ñëw. mu ne waaw mënoon nga maa may 24 heures. mais ñun yoon la ñuy doxal dañu yor institution moo ñuy jël rek xëy rek dal ci kaw nit ñi. effectivement kon daal mesure bi doon na si ah non non non vraiment man man maa ngi ci e année 6e année de mandature ouais bi mu toogee ba léegi ci waxtan la de yàggoon nga ko bëgg def non bima toge ba tay 2009 ba tay ci waxtan lañ nek voilà donc euh, nañ jappalante rek mhm. defar lañu bok uh-huh. ok merci